leen di école jàngale ci nasaraan képp ku a jàng l'école fii ci Thiès di tamit ab bërëb bu ñuy jàngatee di l'école buy jàngale képp ku mës jàng fii ci cees daaray Sembène di ab bërëb bu nuy jàngatee lii di programme télévision yi moo ñëw tey pour juróom-ñeenteelu fàttaliku Sembène usmaan Sembène usmaan mu ngi génn àdduna 9 juin tey ci 2007 ma ne loolu nag boo koy xool am na loo xam ne sax duñu ko wax mu ñuy metti waaye loolu dafa am. mooy que ne Sembène Ousmane gëddam dafa des senegal xam nga ki nga xamante nii moo yóbbu sa nataal fëpp ci àdduna bu nu la xamee bay ñëw ñu naan touriste ak tourisme foog naa ne liggéey na ci lu bari ndaxte ku seetaan filmam yi nga xam ne premier la noir de biir mooy premier mooy mooy film bi njëkk ci Afrique sow jant nit ku ñuul def ko ma ne loolu fa ma yóbbu senegaal ñu toog ba léegi nii kat boo demee Burkina Faso xale bu am fukki at ak ñaar xam na gëddu Sembène Ousmane waxuma gëdd nit ki de dañu dépassé loolu dem ne gëddu liggéey bi gëddu liggéey bi lanal la mooy ay livre mooy ay téere yum fi bàyyi mooy ay nataal yum fi bàyyi tey gi ñu ngi waxtaan ci mbirum xeesal juróom fukki at le film boobu génn muy laa Noire de xale bu jànq bu ñuul bi la tudd tey gii ñu toog senegal juróom fukki at ñuy jël ay nataalu xeesal naan leen jóg leen dem leen xeesal liggéey xam nga loolu dafa ruslu ruslu na trop parce que fi ñu toll nii télévision amul ku ber foo toll ci àdduna bi yaa ngi koy seetaan su ko defee ngeen baal ma ci wax dañ naan waaye yéen ñii ñàkk ñu jom ñii li ñu ñu def leen ay jaam. duñ ci seen li leen yàlla bind Cheikh Anta Diop liggéey fi lu kenn loo xamante ni lu rëy la Nelson Mandela xeex xeex xeex ba euh, Afrique du Sud daal di am seen seen seen jàmm Sembène usmaan fësal xale bu ñuul bi ci àdduna bi yëpp ñëpp daal di kaa sopp ñu ne déet ne waaye Léopold Sédar Senghor way nit ñu ñuul ñi bu ma nit ñu ñuul ñi nag nit ñu ñuul ñu ñuul ñi ak nit ñu ñuul ñu xeereer yeeg nit ñu ñuul ñu xees ñi laay wax mais nit ñu ñuul ñu xeesal li moom defe naa ne loolu rafetul ci sunu sunu sunu sunu sunu der su ma mënee waxee noonu léegi nag kon xam nga film Sembène Ousmane tey buñ ci jàngatee foog naa ne ñooñu bu nekkee ne am nañu tuuti xel ñuy def di wane ay publicité xeesa ci télé war nañu bàyyi loolu ndaxte loolu de xale bi ndaw bi moo ko waroon def wala ku xamante ni xamut lu bari ñu tere ko ko waaye du ñoom. tey jëm ci wàllu héritage bi ni fi bàyyi tey. Mhm. dafa mel ni euh, loolu dañ koo war a dañ koo fàtte war nañoo taxaw héritage comme wax nga ko si mu fi bàyyi ak li œuvre yi mu fi bàyyi yëpp a taxaw ngir gën xam ko. waaw xoolal tey affaire u Sembène koo fa gis Abdoulaye Elimane Kane kooku xam na gëddu Sembène Alioune Badara Bey macha allah donc nit ñi euh, yëf yi du gëddu sempen sax de gëddu œuvre am mooy lim fi bàyyi lim fi bàyyi lan la liggéey la parce que defe naa ne liggéey la la ñuy wax waxuñu nit ki parce que liggéey sempen daf ne ma woon liggéey mooy wane nit ki man loolu la ma jàngal donc liggéey mooy nit moo tax nag ma ne li fi sempen bàyyi de man li ma ko gisee mooy kenn dak ah. mi ngi bëgg a naax saay daaray Sembène dañu ngi ciy béy waaram mais dama ne man dama taseeg benn tubaab boo xam ne Sénégal gi la juddoo mi ngi tudd Dominique Santeles yore jël film Sembène Ousmane yëpp def ko DVD jërëjëf sax ndaxte loolu dina tax tey mooy tax tey ñuy projet ñuy ñuy wane film yi fi nekk nii ci ci ci ci toogaay yi yi am Sénégal waaye defe ne ma am na lu xew de ma ne ko lan boobu maa ngi France. yàgg fa mu ne ma boo demee gàll ceddu di nga gis ne bagaas yaa nga fa fees fa dell yu Sembène Ousmane mu ne ma dama fa dem dama tiit ma ne ñii de xamuñu sax gëddu bagaas yi Sembène usmaan am na lu bëree bëri bëri lu mu bàyyi loo xamante ni defe naa ne buñ ca jëfandikoo woon dina baax si ñun waaw duma wax ci leçon ci loolu nag rawatina ci ay jàngale lim ñu jàngal lim ñu jàngal moo jur daaray Sembène lim ñu jàngal ñoo ko liire si ñu ko gisee ci livre mi ak filmam yi ak li ñu yàlla def ñu xam ko mu jàppoon ñu ne doomam. mooy euh, Sembène euh, dafa nekkoon benn bindkat ak euh, benn cinéaste. bu nga xam ni xeexam yëpp daf ko def ci ci ci dignité wu noir nit ku ñuul d'abord euh, te mu xeex aussi ak ni nga xam ni dañu dañu dañu dañu nootoon ak wane ni ñun nit bu ñuul du dara kooku daf ko xeex fu nekk nag man nag ma am ci euh, vraiment am ci chance bu mag teel ànd ak moom parce que 72 boobu yàgg na xëy na ñu bare ñu nekk ci salle bi juddu 72 maa ngi woon moom en Union soviétique temps yooyu à Tashkent congrès bu njëkk bi écrivain afro-asiatique moom man la présenté woon man ak Mamadou Traoré Diop moom ñu yóbbu présenté ñu donc euh, ñu fa bokk ak moom yu bari nañ toog ak moom yu bari dem nañu ba nga xam ni euh, toog nañu ak moom ak euh, Yasser Arafat quelque jours. yu jiitu tuuti blocus bi amoon Liban fa la ko fekk donc euh, combattant de la plum la doon ko plume ki nga xam ne day bind rek toog ci bureau du doon bind dem ci terrain bi du ko nga xam ne aussi dafa doon def cinéma rek indi ay caméra toog film ji non dafa doon bokk ci combat yi. waaw dañ joxuñu ko joxuñu ko gëdd bi. parce que euh, ñaari ñaari secteur moo gën a moo gën a xarañ bu fekkee da nga bëgg euh, da nga bëgg ca jàllale ay message muy université bi ak l'école ay œuvre am jàngale wuñ ko ci université yi dañu jékki-jékki rek benn kii ñu génne benn programme comme ni ma ko waxee tey man bëgg naa bu baax Victor Hugo bëgg naa Baudelaire bëgg naa ñooñu Chateaubriand waaye nag bu ñu sañoon ñun Sembène Ousmane ñu koy jàngale ci université di jàngale ay roman am jàngale cinéma parce que am na film yi nga xam ne am yi nga xam ne niveau yu benn duñu lu ñu mën a jàngale primaire lu ñu mën a jàngale secondaire am na lu ñu mën a jàngale universitaire mais kooku nag il faut que état bi par rapport avec le ministre de l'éducation nationale liggéey si pour ça mais nag donc loolu buñ ko commencé woon kon dinañ xam seen benn mais ñu bëri xel génération bi xamuñu ko dañ koy dégg te pourtant œuvre loolu lay jëriñ œuvre mooy boo fi jógee que euh, dundu dundu euh, écrivain dundu créateur dafa wuute ak dundam moom ci boppam dafa autonome la vie de l'œuvre est autonome de la vie de l'auteur du ñu benn donc loolu moo tax bu ñu bindee bàyyi fi loolu mooy bu ñu ko bu ñu ko tasaare mooy message yu écrivain moo tax ñu di écrivain bi wala ay immortel lañu du parce que du du du sangoo suuf waaye liñ fiy bind mooy des ba nit yi di ko jàmm Alors, euh, en tant que dermato, euh, on nous a demandé euh, de parler cet après-midi de l'approche euh, médicale de la pigmentation artificielle. Nous avons essayé, euh, avec, un, temps assez limité quand même, de faire euh, la liste des, des complications surtout, des complications liées à la pigmentation artificielle, ces complications qui sont d'ordre cutané et également d'ordre systémique. pour moom mais balaa ma yegg ci loolu damay wax nii ma jàkkaarloog yow ba muy bind la noire de prémonition la amoon doomam dina nekk une noire en face de nous xoolal ni nga mel yaa booy kontaan naa ci li nga mel sama xol seet bu loolu passé nag mhm. centre bi moom wax dëgg yàlla lu am solo alors docteur Niang l'a dit tout à l'heure parce que pour reprendre euh, saint Thomas comme elle a dit euh, docteur Adja Niang saint Thomas disait que je ne crois que ce que je vois la publicité elle véhicule des messages quand la pub vous dit il faut vous éclaircir la peau parce que c'est plus joli et voici les produits que vous pouvez utiliser pour euh, entre guillemets être plus beau ou être plus belle ça, dépend de la personne qui est concernée Alors euh, là, je me dis que quand même, euh, c'est fort, c'est assez fort. Hein. C'est assez fort, la publicité, elle est assez fort parce que ça, ça marque la personne. La personne qui, qui, qui voit cette publicité retient le message et après va copier ce qu'il a vu. Alors c'est vraiment euh, un message assez fort, je dirais. Et de manière